gannaaw loolu dafa am mbokkum taalibe mu gis mu raw xaan mbay bind ci sañ Tuuba te mu soreek la am mel na ni sax ba ko bindee yàgg na moom da koy door a seetlu rek moom mbokk moomu ba mu ko gisee mu mettit lu ko mu naqari ko ba am na lum ci bind sax waaye moom nag lam ci bind jotu koo mool jotu koo tasaare moo tax jaaru ci aw fii ci bànd yi lolé mu gis nak bari ko naqarlu ci waxi rawhan bay jum wax ci seigne touba manis nako teunk ci juroom ñaari tomb juroom ñaari tomb yi nak ma netali fi ben ben bi ci jëk moy dafa wax ne inna shaykha ahmad bamba al-amtal khilafan li shaykhihi al الحاج Malik. alladi yaxut ala dirasati ulumi diiniya tomb bu njëkk bi dafa wax ne Sëriñ dafa jàppoon ne yoonu tasawuf mooy yoon wi gën wuuteeg alaaji Maalik mi nga xam ne dafa daan soññee ku jàng xam-xami diine yi loolu nag bu ko ab taalibe déggee te gis Sëriñ Tuuba taalif ci tasawuf masaliku jinan muy téré bu yaatu ci biir itam mu di ci waxale ni ñen ñi gënaawale tasawuf te am njariñ lool ba kon bu déggé wax ji day daal di amum lënt ci xolam waaye li ma ta leeral mooy sëñ Tuuba <coughs> dafa jàpp ne diine ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi mooy gëm la neexee ko al iman bu la neexee tudde ko at xaaju ñaareel bi mooy wéye santaane yàlla ci kaw souf te loolu mooy xam lañu la digal te di ko def xam liñ la tere te ko moytu xam fañ la yemloo nga bañ koo weesu benn yoon loolu bu la neexee tudde ko al islam bu la neexee al fiqhu bu la neexee tudde al sharia xaaju ñetteel bi mooy lépp looy def yàlla dong dong dong tax te it nga sàmm teggin ya nga xam ne moo ci war biir ak biti loolu bu la neexee tudde ko al ihsaan bu la neexee tudde ko at tasawufu la neexee deko ko itam al xaqiqa ñett yi sëñ bi noonu la ko daan jàngalee téere mi mbind it noonu la ko tërale tasawudu sihar ak boo xoolee tasawudu shubam ku ci nekk ñetti xaaj la koy def bu ma sa tok di tomb ci suuf itam di labiré bokki talibé di leen waara jangalit non rek lay jangalé yetti mu jangalé mu leer a leer mo leer ma ci ne masis gis mu ko gëna a kon sëñ touba fu mu tasawuf rek xamal li ci lam ci jublu moy al ihsan al ihsan moy def ngir yalla kessé te yàlla dong tax te xam nga ni kat loolu dong mooy tax gëm baax mooy tax jëfi digal baax ndax looy def te seetlu ko yàlla taxut ba sa moo ci teggi ne ci war rek loola du baax ngay sonn ba noppi doo ci jariñ kon ñu jàppe ko noonu xam ne suñ tuwaa fu mu tuddee tasawuf rek dana ko tuddee itam ihsan loolu la ci jublu rawxaan nag moom daa bëgg ñu jàpp ne tasawuf suñ tuwaa mooy jekki di woote maqaamaat di woti te do jëf ak di wax ni man sama xol sel na sel go xamni man na ma bayyi ndigal yi te duma wañi dara man na ma waxu xëtt te reey te du wañi dara lu la neex def daal mel ni daal léegi to ci sariha jàpp nag malik mom muy ko xamni dafa jappon deug deug sunna japp deug deug alquran japp deug deug sariha te touba nak mom moom ton noonu non la bëgg ñu jappé ko loolu mi ngi ko wax ci الإسلام في السنغال قد ونك 313 بشي 314 اكي تام مجلة القدس تي قد ودون 116 نياريل تومبي دا موقف الشيخ احمد بامبا من مبدا ان كل انسان يحاسب على حمله غير صريح في بعض المواضح xilaafan li cheikh alxaaji malik allazi yu akkidu doomu ñaar bi daa wax ne taxawaayu sëñ Tuubaa ci liñ wax ne kenn ku nekk dañ lay xisaab fay la si jëf loo jëf rek lañ lay fay nee na taxawaayu sëñ Tuubaa ci loolu taxu koo leer ci yenn ci béréb yi maanaam sëñ Tuubaa daal taxawaayam ci googu wàll ndax dogu na ci ne noonu la amee loolu daal mel na ne leerut ci yenn wàll yi te mu ne loolu tam mu wute naag alaaji Maalik mi nga xam ne fu mu toll day fedd li loolu loolu mi ngi ko wax itam ci islam fi Sénégal xatwa doon trois cent treize waxaat na ko itam ci majalat xuds génne nañ ko ca xatwa doon cent seize bi tomb ñetteel bi mooy daa wax ne inna cheikh ahmad bamba yuqiru at taqlid al ama xilaafan li cheikh alhaaji malik alladi yudinuhu neena ci tomb ñettel bi sëñ Touba dafa saxalam top lo xamut moy topal rek te bul jema xam li ngay top mooy gëmmal rek te top bul jema xam bul jema a dara ne lool nag wuti nak allah Maalik mi nga xamne dafa daan condamné lool lool ba tombo mi ngi nek ci al islam fi senegal xat wa doon 314 cent ne itam ci majalatul quds ان الشيخ احمد بامبا كان يرى ضروره توسيع الاعمال والادوار بتوجيه غير المستعدين للدراسه للعلم الى العمل في الحقول ليضمنوا للمشتغلين بالعلم نفقات المعيشه مقابل ان يعفيهم هؤلاء minal waajibaati ya tomb boobu nga xam ne mooy tomb ñeenteel bi waxin wi daa xaw a gudd waaye mënees na ko gàttal ci ne moom rawaan daa bëgg wax ne sëñ dafa defal nit ñi ñaari xaaj benn xaaj bi féetewoo liggéey rek ca tool ya seen yoon nekkul ci xam-xam ñenn ñi féetewoo xam-xam ak diine ñi liggéey ca tool ya nag moom te seen yoon nekkul ci xam-xam ak diine ndegam ñi ngi liggéey di jox rek ñi nekk ci xam-xamu diine loola doy na kon ñi nekk ci xam-xamu diine yóbbaale na leen seen jaan wàcc na mënees na ko gàttali noonu loolu nag wuute naag yarinu sëriñ bi booy jàng téeréb sëriñ Basiru bi minanul baaqil qadim fi sirati cheikhil qadim da caa am dog boo xam da cay wax ni bi daan tarbiya nee na boo ñëwee ni bi njëkk a def mooy xamal la sa war a wari ba noppi su ko defee nag ndegam moom docteur bu xol la ah day daal di seet fa nga xam ne falal yàlla farale mu farale fa ndax xam nga ne li nga xam ne mooy war war li nga xam ne mooy farate jëmm moom kenn mënu ca yóbbaale kenn kon loolee faaw mu xamal la ko te saxal la ci mënta ñàkk waaye nag bu farate jàllee la ngay def di ko yokk di ko yokku ci sa diggante ak sa borom nit ñi dañ caa wuute am na ci ñoo xam ne yàlla ubbil na leen leen ci topp xam-xam ak jàng ko ak jàngale kon bu boobaa sëñ bi di leen di féetale ci googu rek am féetale ci alquran jàng ko jàngale ko ak bind ko am na ñu muy ci xam-xam ci topp ko jàngale ko ñi nga xam ne ne ñoom yàlla may leen cër ci googu wàll xam ne seen doole rek lañ mën a daan ñooñu la yebal nag tool ya ñu boole xam-xam ñu boole xam-xamu diine bi mënta ñàkk ak jëfe ndigal ak tere gu mënta ñàkk te dara du ca manqué ba noppi ñu di liggéey di jox seen ñaq ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu xam-xamu diine te kat ñu féete ci wàllu xam-xamu diine xam nga ne mënuñu caa boole yëngatu seen bopp ca tool ya mbaa seen yëfi àdduna kon nag ñee dimbale leen ca ak dimbalante lay doon ci li ñu wax ak taxawunu xalal biri wa tak te it ñu fàttaliku bu baax ne xam-xam kat topp ko nii baax na di ca nër nëri waaye xam-xam bi nga xam ne mooy farata ci jëmm ji mooy rek li nga xam ni moom lay jànkuwanteel ci dundam lu mu ca toll daal koy xam lu mu ca toll fexe ba xam ko ni ki julli mi nga xam ne mënta ñàkk su bu ne mu koy tax a baax ak jërim yi ñu ko dénk te mënu koo ñàkk sàmm di ci def ndigal di ca bàyyi tere ak lépp lu mu toll rek dundam bu dee jaay bu dee jënd bu dee aji màkk bu koor ñëwee bu dee takk soxna lu mu toll rek xam ko loolu kat mooy farata ci xam-xam waaye topp téere di ko jàng nag di wéy ba nga xam ne ngay àgg ci gëstu ay masala yoo xam ne yow ci sa bopp xalaatoo mukk ne da nga dem ba jànkoonte moom ci sa dund yakaru itam kenn ku ñëw di ko yittewoo di la ko laaj loolu fardu kifaaya la mais bu ci ñenn mi taxawee rek ñenn ñi seen jàng wàcc loolu mat naa xam bu baax su ko defee seen bi nag moom kon ñenn ñi nekk leen di féetale fañ war a féetale ñi nga xam ne ñooy liggéey ci tool yaag ñu ci biir yam kenn ku ci nekk yaa ngi sax ci sa diine lu la war nga di def biir bitti fekk ne nga xam la nga war a xam am yar ba nga war a suñ Basiiru àgg na ci wax ne suñ bi demoon na ba bu waxtu bi jotee julli jot taalibe yi am ci ñoo xam ne xamuñu aaday suñ bi ba jàll ci liggéey ba te julleeguñu nekk di liggéey rek te defaguñ farata ji muy julli gi suñ bi day wax fañ yaman ba julli gi jotee te ne fii nañ ko dindi ba mu set defaat ko ba tey nee na ku wóorul nangu nga defal ko dara dara dara dara xam ne loolu tomb boobu ba tey ko wax ci al islam fi Sénégal xadwa doon trois cent quatre vingt ak quatre cent vingt-cinq tomb bi daa wax ne inna cheikh ahmad bamba atna al harbi al alamiyati al ula وافق على تقديم مئتي مجند للسلطات الاستعمارية رغم محارضة القادة من أتباعه وعدم رضاهم dafa wax ne sëñ Touba ci jamonoy guerre mondiale bu jëkk bi sëñ bi nangu woon naa jox tubaab yi ñaari téeméeri soldaar am ñaari ñu leen kilifa wi bi ànduñu ci woon loolu sore naag li am lool boo jàngee téereb sëñ Basiiru wala nga déglu ko ci band yi ndax def nañ ko léegi ay band ci wolof sëñ Basiiru leeral na ne bañ ñëwee bëgg ci sëñ bi mu jox ab soldaar dañoo dañoo mën mën am ci moom benn benn bunt ba ñoom dañoo xamal seen bopp ne ku dem ci dongoom yi waxtaan ak ñoom kii du àdduna du nitu àdduna ku yebu bàyyi ko fi te seeti yi waye li ñu wax nak tom boobu mi ngi wax ci al islam fi senegal xad wa doon 454 tomb juróom bennel bi da wax ne fil majalis siyasi hadiya bi musanadati suama al الصعماء المخلوعين wax ne ci walu politique ci day nga xamne ñom lañ folé won ak ñi amal nguur ñep te ñak ko ak ñi démé nonu dañu ñew kompaloog sëñ bi mel ni daal dañoo joxanteeg moom loxo di kompaloog moom ndax xam nañ ne ñàkk nañ nguur te bëgg nañoo delluwaat ci nguur mbaa ñàkk nañ adduna te bëgg nañu amaat adduna waaye lañ ko topp woon du ngir yàlla du pas-pas loolu mooy tomb juróom-benneel bi mi ko wax itam ci al islam fi Sénégal xët wa doon trois cent cinquante deux juróom-ñaareel bi ci mujj nag moo gën a doy waar moo gën a sori dëgg te bu xamoon dara xam ne sëñ bi sori na ko mooy daa wax ne inna hadadan min mu allafaati cheikh ahmad bamba la siyama qasaiduhu yasmahu lana an naataqida annahu haasha fatratan min hayatihi kaana ihtimaamuhu al awalu fiha an yajmaha min jamharati nnaasi atbaahan mustaidiina lil mawt boobu moo juróom-ñaareel bi daa wax ne ab lim ci taalif yi sëñ Tuubaa taalif rawantina xasaayitam yi nee na boo ko da nga gis ne moom sëñ bi mës naa toll ci ay jamono yoo xam ne yitteem ja nga xam ne mooy yitteem di ko gën a faral yitteem ja nga xam ne mooy yitteem daanaka ju amul ñaareel mooy rek mu dajale mbooloo mu ko nangoo deexal loolu moo gën a sori dëgg ci mboolim daanaka ñu wax boo ko dee seet loolu mi ngi ko wax ci al islam fi Sénégal xat wa doon 338 ñi ngi jéggul nak bokki talibé yi ndax dañoo joxe rek limu xaj yi te joxuñu te joxewuñu numéro ba te xam nga ne bu dee ab journal wala li ñuy wax rewi ñu wax ma jàlla nga war a joxe xadwa joxe numéro ba ba nga xam ne kooku boo ko bëggee seeti seeti ko ca bu dee téere bu ñu mool itam nga wax mool ba ak ban at la mën ko seeti foofu waaye xale xëy na yàlla may nu yaatu ñu wëlbatiku batal ko ci bako ko bëgg séti man ko séti tomb yooyu la mbokkum taalibe moomu nag gis doon ko ñaawlu te mu sorek dëgg lool waaye lama ko ci wax rek moom mooy loolu moom du bette fukki lii sax bu ko waxantam du bette te it ku xam démb xam ne la ak taalibe neex te yomb waaye mas naa jafe lool ndax taalibe yu njëkk yi dañ leen daan dóor ba yeewu leen génne leen seeni kër lakk seeni dàgg te duñ am fenn fenn fuñ koy jooytoo fu may ci sëriñ bi ñëwee ci sëriñ bi sëriñ bi moom mbir yëpp a yam menn paj képp la ci am muy delluwaat ci yàlla xam ne lépp yàlla te yàlla lu mu def dafa war a neex ci xol waaye warta naqari ci xolub kenn kenn teg ca nag xamal leen ne leen yéen kat saxaaba yi ànd nag yonent bi ñooy seeni bàyyi ci diine te ñooñee kat lu nekk dañ nañ ko ba yéen sax du ngeen àgg ci foofu xam naa ne waaye nag bu ngeen tegee seen bët ci li suñ boroom ne yow ma naddu kulla unaasin bi bis ba nga xamee ne mbooloo mu nekk dañ leen di woo ci turu seen kilifa mu ne leen mu ngeen tegee loolu ci seen kanam rek dara du leen jaaxal dara du leen metti dara du leen naqari loole bu ko taalibe bi mësaa dégg seen xol day sedd dañuy bég dara du rëy dara du rëy fi ñëw nga xam ne yooyu jamono taxaw fenn ñu lay woo ngay ngay wuyoo mbàkke wala faal wala taxaw fenn di jàng yaa dal jalaali yaa mutaxaali loolu àggan na ci doy waar lool boo ko def rek mën naa am sa bakkan des fa na sax ci am na ku am na ku nekk ci suñu dëkk bii di daarul mooti net li wax ne am na xeetam woo xam ne ba mu dawee di jëbbalu ji kilifaam dafa soxuk fetal war aw fas di ko dabi wax ne bu ko jotee da koy da fetal nga xam ne yàllaa def kooku raw dem jëblu ji waaye noonee la kilifaam googu defoon te kat ki fekk lii di ko nettali fii mu nekk yëguma génnam àdduna mi ngi fii ci dëkk bi nu nekk daaru nooti te lii wax ma nga xewe woon ci ab dëkk bu ndaw boo xam ne soriwul daarul mën naan gee nga xam ne fa la sëriñ Cheikh Awa Balla nekk Suku defé itam nak nuy ñaan mbokki talibi ko ci xam yalla yàlla may na la dara ci ak yaatu ci sa dund ak dara ci xel rawante na nga massa jang wenn lang niki français wala wenen nga amu xir ci langu arab wi ndax gannaaw bo weesoo ne langu arab mom ci alquran wacc yonent bi nekkon ab arab waxi aljana itam di nek langu arab lu wees loolu manesna tuuba manes na wax ne bu ëppale lu bind ci bindkat yi te lim bind lepp arab la ko bind arab yu sel sel man nga ni sax danaka du ci rax ben ben baat lu may rek amna bo xirna ci sante yalla boromam lol ba àgg ci jëfëndiko baatu wolof ak baatu français fa mu waxee ne sama wal ardi rabbal harshi laka saraftu jëf wa merci xam na asaman yow borom asaman yow borom suuf yow borom aras yow rek ya mom sama jëf ya mom sama merci merci joju sax amna fum ko defé ñetti way way wu mu tollale ko wenn araf ci arafi merci yooyu mi mim ra shin su te kat xeyna sax langu arab jafe na waaye xam nga nit moom daanaka lu mu jëm te caaxaanu ci rek yàlla mën na ko caa may loo xam ne day nuru wilaya te du wilaya ndax seetlu nga ne ñi topp wàlluk export sax dañuy dem ba di ci def loo xam ne dalay jaaxal te xam nga ne pratique dong la lu ngay ne langue arab fi mu nek dañ koy jang rek ci daara yi waye amatul kuy judd namp ko moog lang ci dess ñoyam te da nga gis ñuy jokkoo ku bok ci wa risi ba ku bok ci wa israel ba ku bok ci fenen ko xam da naka joti wut ak arab dara waye jangam ko jang day tax rek mu man ko lol jekk ko lol kon nak tegtal la ci nit bépp ci ko wax ci mbiri serigne bi da bind ci arab ndax xam na ne arab moom ñu bari xam ko bari ca mën a yëg dara bari ca mën a tontu te kat dafa dama dem sax ba nga xam ne ci biir yoon wi ci boppam ñi ci mën a bind ci arab ñoom ci bind di wax ci sëriñ bi mbaa ñenn ci taalibe yi mag yi loo xam ne nii noonu wala xalaatuñ ko wax waaye ndegam arab la rek moom ñu bari dañ ko xam dañ ko daal di bind ndax rek ci misaal am na koo xam ne dama jaar ci turam bu waxanteeg mbokkum jàngkatam moom lépp ci yoon lañ bokk di ci kilifa sax ci biir wax ja mu daaneele ni man daal kenn dong laa xam ne bi sum bi jógee doon na xëccoo xilaafa gi te ne mooy maam Thierno Birahim te kat loolu daa wax ne mën ko tibb ci ay tibbukaay yu wóor te kat moom doon lu mu doon tontu mbokkum a daal ci dara dara te ba mu tontu ko man bëgg man ko bëgg a tontoo waaye rek teewut mu daane loolu te xam nga ne ko xam maam ceer nga xam ne loolu maam ceer nga sore na ko lool sore na ko lool sore na ko lool ba tey itam mbindi sëriñ bii nu tudd léegi te mbaree nii mat naa waxtaane ndax kat bari na woon ci tas ndax xam nga ñi mën a bind ci seen xalima rek yaxal maas mu rafet dafa bari te xam nga ne itam mbind sëriñ bi dafa bari njarte ndax ñëpp ko soxla luñ ci jaay rek mu tax na tas waaye mboolem yooyu nga xam ne dañu ko bind di ko tas di yu ci baree bari aajo woon a topp lool am na ci yoo xam ne ñoom tey nekk yu rëy rëy la am na ci yoo xam ne itam ñoom tey xëy na yu ndaw la. moom yëpp aajo woon topp daanaka te loolu ci daaray sëriñ bi léegi loolu ci daaray sëriñ bi taxu ko wér ndax fañ ko sottee daa wérut te it topp ñu ko seetlu rek ci na sax ci daaray sëriñ bi ñu boole ko ak yi milan maanaam yeneen bi yu bare bare def ko benn téere bu réy réy nga ne seet ko jawaahir benn wéru ci te boobee ñu boole ko bi loolu moo ci gën a wéru ji waaye ci ay dénkaane sëriñ bi am am njëriñ it rek lañ mel ba tey boo ko seetloo bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fële fële ca Italie ak ñi xam ne sax ñoo nekk ca Espagne am na fa ay bind yu mbind nii waaye moom itam seen bind yooyu aajowoon na topp lool sori ak wér ba tey itam dem naa dem sax ba yii ñu mujj dajalee fii ci daara ji këstan bi dem moo lu jóge foofee indiwaat waaye sax kenn nekk aajoo naa toppaat te itam mën a toppaat mbirum sëriñ bi toppaat gu wér dafa jafe ndax kooku day boole xam naxu bu baax xam luxa bu baax xam xarood bu baax am jot ga mu jaral ko ko loolu moo ci war a daje te itam ñu xam ne jàngi rek ba am ay diplôme taxute mën a topp mbindi sëriñ bi loolu nag waxuñu ko ngir woyofal boroom diplôme yi dañ ko wax rek ngir day def ne ku tëb tëb jàngi bitim réew te fekkutoon nga jàng fii naxwu jàng ko rek foofa mook wàllu googu ni ki luxaak xaroodu ba am ci yaatu go meuna topi mbirum serign bi day xawa jafé té lolou ku sé ku amul sétlu xam ko kon dañuy ragal rek kenn bind ak qasida mbaa lu bokk ci mbindi serign bi dem lo ko xamné amne am nay diplôme gannaaw ba nak luñ ko ci won rek mu top lu won nako té xamna ni fam jaar mom lolou borom diplôme yi moom bu fekkee ba mu demee foofa dafa spécialisé wu ci googu wàll loolu mën naa jàpp ni waaye bu dul loolu rek li ci ëpp du ci am lu doye toppi mini sëriñ bi su ko defee itam li li war a def rek di jéem ko ngir yàlla ak bëgg njëriñ suñu bopp mooy ñi nga xam ne ñoo mën a bind te mën a yaxal mën a maas ak ñi nga xam ne ñaari boolukaayu di mool di jaay wala ñoo mool ben téré top lu ko ba muur dem na sax ba nga xam ne moom bëgg jang rek ngir yalla ak am barke xasaay bi ka jang su fekkee né sag xam àggu ci bala nga jang genn xasiida ngay dem ci ko xam ne wóor na la mom ne moom nattabloo ko mën na koo topp mu topp la ko ba mu wér ndor koo jàng ba ñi nga xam mën leen a jàppe borom baadu neex di leen woo di leen yëkkatiloo xasaayu ci sëriñ bi léeg-léeg sax ñëwoo nañ fii ba bitim réew niki amérique ak europe ak yooyu noonu dañu war a xam seen bopp bu baax xam ne yëkkati xasaayu ci sëriñ bi njëriñam moom fa mu àgg kenn kenn ñu tëbluwoo ko ndax sëriñ bi ci boppam daana toog di ko yëkkatiloo ñu koy jàng mu di ko déglu loolu moom ah, te it xam nga sëñ bi na ci xasaay gi waji xalxaa min ma tataxanna biha al xoorul aynu wal wildaanu fil jannati allati wa'ida al muttaquuna yàlla na nga def sama xasaay yi mu bokk ci yi xam ne jigéeni aljana yi ak gone yi aljana yi dañ xam nga ne moom sëriñ bi nee na xasaayitam yi day yëngal ña nga xam ne yanu aras nekk di mbégte ci gaay yàlla yi nga xam ne mat ne itam saa yu bindee rek aras day jaayu malaayka yi yépp daal di sàbbaal te loolu loolu mooy lam wax ne hëjët qasaidi qulubal hamala lil arshi wa hiya busharun lil kamala ida katabtu tazza arshul baqi wa sabbahat malaikut tibaqi lolu ko deg xamne mu neex baat yëkëti xasaay bu sëriñ bi mu réeré la mu mata mata def la waaye nag bu koy def da nga war a sàmm teggin ba nga xam ne day mën na yaa ngi toog sëñ bi sëñ bi toog ngay nett li xasaay tamu ci sa baat bu neex bi jëpp war na jëra sàmm ak teggin ci bu sëñ bi toogoon rek ay daayira lañ ay eh, xale ki jigéen lañu dañoo bëgg leen fexal dañoo bëgg leen nangam loolu lépp ko seet ngay seet rek li nga xam ne moo am njëriñ te lay jox garamu sand rek nga góorgóorlu te loola mu dolliwaat ci itam nag ñenn ñi nga xam ne dañoo toogal ci béréb ñu leen di tuddee ay boroomi xam-xam rawante na biir béréb boo xam taskatu xibaar la ko defee muy yëkkati di wax ci turu mbir yëpp ko defee te la wax mu muy tàmbalee rek di sarxal ay baati arab da cay juum juum koo xam ne ku dégg rek di xam daal di xam ne kii moom xamut mën naa am nag aw laa ñoom neex wala waaye boo fàtte ne laa ma ñoo neexee kat laa ma ñoo neex ci arab ak ci leneen na ci yam dafa bokkutu xam nga. te kooku sax bu jàllee ba ca biir di waxtaan ci mindi sëriñ bi na muy nettalee wax ja mbaa nam koy jéemu firee day soreek na mu doon lool nga xam ne képp ku xam rek danga ci am aw metit lool maa ngi jéggalu nag mbokki taalibe yi bu baax ci lépp loo xam ne wax naa ko ci wàll gii rek jubluwuma ci lu may rek ñu xam ko bu baax te bàyyi ko xel ndax sunu njariñ gën a dolliku jariñu jariñu sax waaye sunu njariñ gën a dolliku ma door a jàll nag ci li ma bindoon ci bi ma mbokkum taalibe moomee wane la mu gis rawxaan wax ko ci mbiri sëriñ bi te mu wuteeg la am li rek la ko ci tontu mu ñu bind maa ko dëgg won ci daaru moxti tolok ñetti fan ci weeru sanwier ci 2001 tolloon juróom ñeenti fan ci weeru korité ci 1421 ci gaday gi mu tàmbalee ci ahoudu billah bismillah wa salawatuhu wa salamuhu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa radiyallahu anil khadimi أو الأكبر أحمد بامبا وهم مريديه الصادقين وألحقنا بهم كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء dama تعملوا في muslu سيطاني تعملوا turu yàlla julli ci